Sène door na léegi Thiatou Sène a dellu ginnaaw door na ko fayu na ña ngay xeex ñoom ñaar raak fu ñuy mujjee ña ngay raak ña ngay raak a jël na ko LG LG mi neexul dina jël na ko laa ilaaha illallaah LG daan na Thiatou Sène